kenn si nekk si turam ak euh, santam mbégte lay am di jàkkaarloo yéen fii si Dakar Net ci seen émission motivation tey nag nekk seen première numéro mu amoon invité kii di Djily CSB Djily nuyu naa la. maa lay fay soxna si. noo def ma bàyyi la nga nuyu ak euh, internet yi. waaw salaamaaleykum yéen ñii seetaan ñu leen di nuyu di leen ziar lu bëree bari leen ñaanal jàmm fépp fu ngeen mën a nekk rek. Euh, Djily léegi mën nañu xam kan mooy Djily exactement. waaw Djily de benn jeune la buy liggéey rek maa ngi tudd sama tur dëgg mi ngi nekk Djily Ndongo. mais ñu mhm. gën ma xam ci Djily CSB. Mhm. Djily CSB man li koy moom mooy euh, sama entreprise moo tudd CSB. Mhm. après nit ñu collé ko ak sama tur di ma woowee Djily CSB. voilà euh, léegi ñu gis ne ci commerce ngay yëngu. Euh, ma la doon laaj nan nga def ba dugg ci commerce bi. waaw commerce bi moom comme ni si ñëpp duggee rek nekkoon Colobane amoon fa benn boutique bu bu ndaw bu yam début bi mën naa ni décodage sax la doon njëkk doon def. Mhm. comme téléphone yi daan jóge Europe ak yooyu noonu. su mosaan ñëw pour mu mën a dox il faut que ñu décodé ko. pour mhm. mën a jël puce Sénégal ci loolu njëkk di liggéey après ci lañ commencé di jaay ay téléphone ndànk-ndànk. dem a dem a dem ba affaire yi di yaatu daal ba egg si fii nii. macha allah euh, bi ngay tàmbalee si ban somme nga njëkk a tàmbalee sa commerce. waaw euh, somme bi nag est que dinaa ko mën a <laughs> dinaa mën a tudd mais en tout cas daal euh, ci benn affaire bu yam daal ci lañ commencé. Mhm. mën naa ne sax Touba laa jóge woon ñëw fii nii démarré di. affaire yi di màgg ndànk ndànk ndànk ci lañ dem a dem aussi ba affaire bi di gën a yaatu quoi. voilà euh, sa ñëw fii mbaa méttiwul loon début bi. waa xam nga début nag moom dafay métti comme comme ni ko ñëpp xamee. Hmm. début moom du yomb mais nag début boo gis tamit ni muy jafee ci ngay gëme ni après ëllëg war na mën a neex quoi. voilà euh, mën naa xam tey nan nga def euh, ba nekk représentant Samsung fii ci Sénégal. waaw Samsung nag mën naa ni comme ni ma waxee rek bi ñuy commencé fële Colobane mm, di liggéey. Euh, début bi lañ fa doon ñëw xam nga ma seet si souvent yi ñëw fa ñuy waxtaan di xool aussi ni may liggéey affaire yi noonu ci laa dem a dem ba commencé di jaay téléphone yi ndànk-ndànk fekk ñoom ñu ngi may suivre à distance quoi. d'accord waaw dema dema dem après ci suivre boobu noonu yëpp ñu jékki-jékki invité ma benn Africa Forum bu amoon Kenya. Mmh. c'était en 2010. ah si biir liggéey bi nga doon def si lañ la demee ba xam la ba euh, ci lañ ma njëkk invité Africa Forum bu amoon Kenya. Mmh. bu ma fa demee nag ba gis Samsung ni ñuy liggéeyee loolu moom ma gën a motiver ma xam ne lii kat nekkatul affaire yu caaxaan. laa ci gën a góorgóorlu xaj sama tànk tubéy yàlla dogal ñu am confiance bi ñu am ci man ba dénk ma li ñu ma dénk yëpp quoi. mais collaboration bi si début bi mbaa méttiwul waaw métti na comme comme ni ma ko waxee d'habitude rek tout un début moom comme ni ko tubaab di waxee. Ah, dëgg la lépp loo gis commencement day métti waaye nag soo góorgóorloo rek teg ko ci yoon suñu borom mën naa ñëw jàpp ci quoi. Euh, euh, si biir liggéey bi nga doon bi ngay def bi nii euh, lan nga si am loo xamante ne moo la si gën a neex moo la si gën a marqué ba tey nga nga gën a góorgóorlu gën a am féetu pour gën a yokk jom mën see mën see mën see gën a poussé poussé daal di dem. waaw xam nga liggéey moom satisfaction bi ci am rek mooy nga gëm ni yow liggéey rek nga war a def quoi. xam nga man tout lépp loo xam ne lu ma son di def la rek li ma gëmoon mooy à chaque fois damay jàpp ni liggéey rek laa war a def ci comprends. en plus Colobane la lépp commencé ma leen di nuyu sama gars yi foofu comprendre nga depuis ma nekk fa ba tey jii nii lépp dafa rafet ñi ma fa xam ñëpp muy ñi ma xamanteel muy ñi fa dëkk muy samay clients ñëpp jàmm lañ sekk te ba léegi su ma fa demee nii. Mhm. lépp day nice donte nag temps yi li ma fay nekk bariwul. parce que li may nekk ci brand shop Samsung bi nekk si dëgër góor gi moo ëpp. Mhm. mais ba léegi maa ngi fay dem mais terewul ba léegi daal lépp a rafet mais bokk na ci li ma gën a motiver daal moom mooy. Colobane ba ma fay commencé xam nga metti woon na début bi mais dem naa dem a dem ba fàtte lépp comprendre nga te nit moom toujours rek war na am source de motivation buy tax. Mm. muy góorgóorlu ci lépp lu mu nekk ko dëgg la mm-hmm. euh, ban si gën neex aussi <laughs> liggéey waaw liggéey moom lépp moo neex nekk si jàmm rek mën a takk daal yi mën a bouger rek. mën a dem dama xol day sedd. voilà macha allah. <laughs> Euh, ñu gis ne tamit euh, jeunes yi fan yi li ñuy euh, yëngu ci gaal bi dafa bëri ndax mu yow sa liggéey mos na metti tamit ba nga xalaat ne am esprit boobu ne da ngay génn dem tukki walla genre. no tukki moom pour dem immigré wax dëgg yàlla mosul nekk sama xel. Mhm. donte nag presque mën naa sax presque def naa tout du monde dem naa dëkk yu bëri ci àdduna bi. Mm, waaw wax dëgg yàlla amul benn moment bu mu difficile wala mu metti ba ma xalaat ni ko war naa war naa génn dëkk bi pour dem ci beneen dëkk pour wuti fa dara terewul nag comme ni ko ñëpp gisee ñu koy def tamit du question que xëy na dañu amul fii lu ñu def wala wala wala dara mais nag àdduna la yàlla suñu borom tëralee noonu quoi. dëgg la comprendre nga ku nekk sa destin ku nekk tamit ak li nga jàpp ni moom mooy tax nga mën a am li nga bëgg. kon jeune boo xam ne tamit xëy na dem na ba gis ni que xëy na génn rek moo ko mooy tax mu mën a am li mu bëgg man duma la blâmer quoi donte nag fexe ba mu tegu ci yoon nga dem dem bu nice pour man moo moo gën. ngay mm. demee neneen waaye leen di motiver wala lay tax ñu dem ba egg ci niveau boobu sérieusement euh, man du ma ko mën comprendre quoi te tamit su doon man tamit xëy na ma egg ci niveau bu gën a garaaw boobu. ah mais gisoon na tamit dëkk bi amul liggéey dafa xaw a métti aussi. waa dëkk bi moom metti na wax dëgg yàlla dëkk bi metti na am fi dara tamit metti na xam nga metti na quoi c'est compliqué mais nag ko li ma la wax rek ku nekk daal lépp la nga nekk di ca def fulla ak jom maanaam mën na am un jour suñu borom defal la ci la nga bëgg du ñàkk nag xëy na ñenn ñi gis ni génn dem wuti ko feneen mooy mooy li gën a gaaw wala mooy li gën a yomb te fekk ku nekk moom suñu borom sa destin moom tracé na ko ba pare waaw loolu de moom am na moom waaye jili ndax si projet yi Samsung bi rek ngay yem wala yaa ngi xalaat yeneen yoo xamante ne aussi da nga ko siy boolee pour mu gën see mën a yëngu. waaw parce que Samsung moom dañu ma fekkoon sax may liggéey. ñu hmm. ñëw waaw fekk si ma jàpp ci affaire bi gën a yaatu ma féete ak ñoom ba ñëpp xam ni ñoom laa féetal mais terewul am na yeneen partenaires yoo xam ne toujours ñu ngi ñëw di ma démarché. am na yenn partenaires tamit xëy na maa ngi liggéey ak ñoom ku mel ni Tecno par exemple. Mhm. on travaille dëgg la nag Samsung bi moo gën a moo gën a fës te ñoom tamit laa gën a jox bopp comme ñoom ni ñu ma joxee bopp. dëgg mais am na yenn projet yoo xam ne xëy na mi ngi ci kanam te lépp lu ñu gën a dem tamit ñuy gën a xool su suñu suñu suñu kanam ba xam lan la ñuy gën a mën a def ba gën a yaatal liggéey bi quoi. Euh, problème euh, Covid bii ñu nekk euh, ban impact la am ak sa liggéey ndax tamit toogoon nañu benn moment dem amul dikk amul yépp dafa tëje woon ndax liggéey mu ngi doon dox aussi. normal non période Covid bi moom comme ni ko ñëpp yëgee rek <laughs> noonu lañ ko yëgee na trop wax dëgg yàlla surtout moment bi muy soog commencé ay mois avril yooyu juin. Mhm. am na yenn moment yoo xam ne sax daawuñu woon ubbi. dañu daan jox ay jours yu ñuy ubbi ak jours yoo xam ne dañuy liggéey. c'était très compliqué ci suñu liggéey ak engagement yi nga xam ne amoon nañ ko suñ ak suñu partenaires yi souvent xam nga beaucoup de choses yoo xam ne dafa bloqué woon bagage yi mënul ñëw des comme ça mais nag yàlla suñu borom daal may nañu kàttan bañ gérer ko ba mu weesu ci jàmm. Mhm. ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax. macha allah parce que xëy na jeexagul bu baax waaye fi ne nii mën naa ni tane na quoi. Mhm. Mhm. Euh, gis nañ ne yàggut ubbi nga bitik euh, Cité Kër Gorgui ndax yaa ngi xalaataat ubbi beneen feneen aussi si biir région yi par exemple. waaw kon ni ma la waxee sànq rek xam nga ñun moom ay ndaw lañu rek nekk suñu yoon di liggéey te wax dëgg yàlla gis nañ confiance tamit bi nit yi am si ñun. Mhm. surtout suñu clients yi fépp foo xamante ni xëy na gis nañ ni CSB war na fa mën a egg rek ñun pare nañ pour ko fa. mais nag dañuy fexe ba lépp lu ñuy def ñu xaar ba mën ko ba jekk ko rek ba defe ko niñ ko bëggee. Euh, ma gis ne fan yi euh, euh, sa diggante ak Giraan Yaay problème yi am jàppal jiili ngir ngiraan jaay fii nii euh, yow léegi ban jàngat nga si am ak lan moo waral coow loolu tamit. waaw coow loolu moom comme ni ngeen ko rek ci internet bi mën naa noonu la demee. Mm-hmm. xëy na li tax nag mënuma ci wax lu yaatu comme ni mu demee te mu nekk si loxo yoon te yoon leeragul leeralagul exactement nan la demee exactement moo tax du ma bëgg sori ci. dëgg na waaye nu mu demee képp ku dugg képp ku gis wala ku ko yëg nga dugg si yenn si di gis nga ni mu demee yëpp. Mm-hmm. waaye comme man personnellement nga xam ni man la engagé li tax mënu ma ci avancé li mu nekk si loxo yoon te attee ñu ko ba mu leer moo tax mënu ma si wax lu lu bëri oh. ndax wóoru naa ñi nga xamante si ni ñoo yoru wàllu yoon ci réew mi te xam mm-hmm. naa ni ñëpp ndoom waree jaar yoon rek noonu lañ koy doxalee dëgg na euh, léegi loolu lan nga siy rëccu waaw parce que déjà dina jàngal benn affaire aussi mm-hmm. dina tax nga gën a am benn recul sa vie lan nga siy rëccu daal c'est vrai rëccu sax mën naa ni amagu ci. Mhm. pour être parce que comme li ma rek comme mi ngi ci loxo yoon te dara leeragu ci mën naa ni amu amaguma ci rëccu ndax comme ni ma waxee rek wóolu gi ma wóolu sama sama ñi nga xam te si ñoo yore yoon ci wàllu réew mi. Mhm. jàpp naa ni ndaw buñ ko tooñee lañ ci war a def jàpp naa ni dañ ko def. rëccu amagu ci mais nag euh, doon na loo xam te tamit ci cadre sama cadre liggéey rek laa ko defee. Mhm. ndax ñëw na. nit proposé ma di dafa am ay marché mhm. soxla ay produits comme man damay liggéey rek mhm. mu laaj ma la ma laaj ma jox ko ci cadre wóolu ko ak tamit jàpp ni en tant que douanier mhm. am lu représenté ci réew mi surtout état bu Sénégal ma xalaat ni sañul def yenn yenn yu jubadi yi te du ko teg fu mu ko war a teg dëgg am loolu bokk na ci li ma motivé woon ma sekkoon ak moom ci xaalis bu toll noonu ba li ci am am ci waaye kon li ma la rek li tax réccu amagu si mooy jàpp naa ne ñi nga xamante si ñoo yore wàllu yoon ci réew mi xam nañ bu baax liggéey ni mu méttee mhm. xam nañ bu baax nekk jeune ñafe ba egg fi nga egg ni mu méttee mhm. kon jàpp naa ne képp ku nar a jóg yàqal leen mhm. je pense que lañ ci war a def dañ ko def incha allah ndax genre problème yi da lay di dal sa liggéey aussi waaw sincèrement li mu ñuy dal bari na dante nag boobu da cee nekk montant bu élevé moo tax mu siiw ba ñëpp yëg ni mu affaire douanier des trucs comme ça mais ku ne xam na ni commerce moom ak ñoom suñu liggéey dafay laaj souvent nit ñi ñëw nga jox leen nga lebal leen des fois ñi dañuy fay ñe des fois duñ la fay te li si gën a grave moom mooy affaire commerce souvent ku la si koo ci amal problème sax soo demee police affaire civile lañ lay wax mhm. affaire civile après muy ne gauche droite da ngay obligé sax bàyyi mu sedd bon bari na lu may lum ñuy dal bay na lu muy dal samay samay moroomu commerçant Euh, ndaw yi nga xamante ni dañoo bëgg yëngu ci wàllu commerce euh, lan nga leen di conseiller sa secret nga wax leen ko. <laughs> waaw non affaire yi moom pour être honnête amul secret liggéey la rek ak gëm sa bopp. Mm. parce que nit moo xam commerce moo xam lu mu mën a doon ci àdduna soo ci nekkee soo gëmee sa bopp rek suñu borom mën na laa dimbali. li am solo mooy nga liggéey sérieusement teg ko ci yoon li nga war def nga def ko lépp loo xamante tamit la loolu. loo loo ñaanul yàlla mu mu arrivé la ci sa live te du tegu ci yoon nga mm-hmm. moytu ko loo mën li nga mën ci góoru liggéey def li nga war a def nga def ko mm-hmm. lu mën amul secret liggéey kese la du leneen incha allah euh, Jili ñu ngi lay jaajëfal xam naa ne émission bi nag mi ngi waaj jeex ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, internet yi waaw maa ngi lay bëgg lu bëri mm-hmm. ci ñëw bi ngeen ñëw seet si ma dëgg la kontaan naa ci lool ñoo la gën a kontaan waaw di <laughs> remercier ñëpp ñi seetaan di remercier tamit ñi nga xamante ni fépp fu CSB egsi tey mën naa ni ginnaaw yàlla ñoom la muy partenaires yi muy clients yi muy ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi liggéey ensemble mm-hmm. di beral remerciement nag l'équipe de CSB ñooñu moom kenn du ñoom bëgg naa leen lu bëri